vous <laughs> n'êtes li ma bëgg wax mooy euh, jeune frère Ousseynou mhm. euh, tous les citoyens sont égaux dans devant la justice Khalifa Sall président Macky Sall Ousmane Sonko ëpp lu ñu droit ci justice bi tout dossier de la doit être traité de la même manière ça il faut ñu xam. muy ku ñu xam ku ñu xamul. ku ñu xam ak ku ñu xamul qu'il soit Ousmane Sonko ou qui que ce soit. Mhm. justice dafa war a dox ni mu war a doxee. loolu il faut ñu wax ko. ensuite euh, vous êtes tellement généreux que vous voulez yaa ngi xalaat ndeysaan naan après ñu accorder nu ay jours ils le feront jamais. Hmm. non loolu moom je pense pas dinañ ko def. non du bu jeexee jeex na pour tout le monde. bu jeexee hmm. ñun. 10 hmm. jours nous suffisent pour ñu régler suñu problème. du def dara. léegi nag liñ ci mën a wax mooy quand on parle tournée économique avant d'en arriver là. président dafay jeexal. quand on fait un bilan d'un président. c'est suite à des promesses. Mm -hmm. la promesse de notre président actuel bi toll ci génn mu ni damay def réew moo xam ni justice bi dafa tëddee njaaxaanaay mu wax ni du ma protéger kenn sama kër moo tax ma teg OFNAC mhm. mu wax ni du ma kenn koo xam ni sama deret la par décret moo wax ni bëgg na relancer jàppale askan yu ba askan yu ban a sonn loolu de la ñu digaloon bi muy ñëw mais bu ñu def bilan nañ def bilan ci loolu. mais moo ne woon aussi deux mandats lay def il a fait deux ah, ndax ah, na àggaguñ ci àgg ci lii ba pare. d'accord ñeent yooyu mu wax nga xam ne mooy gaamu promesse ba man mayaa bi gisuma ci benn. munu munuma geesul defaral naa la BRT ma ko dëgg la defal naa la TER ma ne ko dëgg la yokk naa autoroute yi yokk naa autoroute Ila Touba ma ne ko dëgg la waaye man la ma digaloon bala nga naan ma geesul nanu wax ca la ma digaloon ba pare bonne gouvernance Amadou Ba une personne que je respecte que je salue au passage dafa juum ci communication ci ban Amadou Ba actuellement ce qui se passe Sénégal métti na métti boo xam ni une majorité des Sénégalais nangootuñu li xew mere nañu seen président yow nga ñëw amoo loo leen di wax ni la ma doon def laay continuer. c'est pour rassurer Macky Sall xëy na ak waa Benno Bokk Yaakaar. qui l'ont ah choisi c'est Macky Sall qu'il doit rassurer ou bien c'est les électeurs qu'il doit rassurer. xëy na loolu après la durant la campagne. bien ñu def un gouvernement de 39 ministres. Mm-hmm. ñu ne gouvernement de combat. ñu combattre kan mu ñu day défi tournoi économique on va bousiller beaucoup d'argent qui pourrait servir à autre mm-hmm. wax na ko léegi facture Sénégal ji kenn mëntu ko supporter ndox bi loi yi et su demee lan lay wax sénégalais yi ils devaient rester là Dakar et combattre comme ils ont dit donc il faudrait que ñu xam lenn mooy problème bi mm-hmm. dégg naa léegi-léegi ñu wax ne parrainage du intention de vote man maa ko wax mu ne ma non. parrainage. bul sol koo dul voté doo ko parrainé parce que man yow ngay sama candidat ma parrainé kii mooy maa ngi seet ku ne ku néewal sa doole. du mhm. ma ko def su ma la parrainé wul sax du ma parrainé keneen ma tëb ci pour répondre a ceux qui font appel ci ñun ak ñii naan am ngeen ay députés yu doy. am ngeen ma ne. le militant de l'APR même bu amul chance su parrainer le candidat de l'APR mais il ne parrainera pas ces gens mm-hmm. que ren on a l'occasion le militant de, de, de distinguer les fiches. le militant de Pastef ouais. même s'il parraine pas euh, Ousmane mais il, ne parrainera pas écoutez. mais y a des indécis dañoo ëpp ci euh, liste électorale bi. mais kon loolu ñu ci tuddee nañ dem seeti indécis yi loolu ñu si tuddee ma bëgg leen wax ni. su fekkee amuñu doole bu ñu amee parrainage nañ dem toog sur la touche des états. mooy les petits les petits ñi ko tolloog ñi ko mën def ko. Mhm. parce que am na ñuy plaindre en fait. mais justement ñooñu. ñooñu ngay waxal ma bëgg leen wax rek nii. parce que ñun la joxoon. ñun mhm. ak ñii. dem leen jëli seen i. ñett la kay taxawu Pastef ak euh, voilà al Benno jël leen seen mhm. candidat yu kii te ngeen bàyyi. ñu ak kii bi de ma bëgg leen xamal ni. le gars yi ñu xam ne APR la gëm. bu bu parrainewul APR du leen parrainé mm-hmm. ki gëm Khalifa Sall bu parrainewul Khalifa Sall du leen parrainé ki gëm Ousmane Sonko bu parrainewul Ousmane Sonko tam du leen parrainé su fekkee ils ne sont pas capables mm-hmm. ah de trouver des parrains ci ñu neutre ñi nañu dem toog te jàpp seen yaamur xam ne ils sont pas le jour vote ñu ku leen neex merci beaucoup Ousseynou euh, mm-hmm. deux questions yi ñooy ñooy ah.